auzubillahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli di mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare te jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér ba liggéey yi mu naal ngir fas yéene ko liggéeyal Cheikhul Khadim suñu borom may ko kàttan nga ak wér gi di leen nuyu bu baax te di leen ziyaare mbokki jullit yi mbokk taalibe yëpp ak ñi ñuy suivre ñëpp ci seen émission Jaalibatul Buruur ngeen koy ànd seen mbokkum taalibe Zaid Ba ñoo fas yéene indi ay njariñ ak yi xam-xam rawatina njàngaleem sëriñ bi kon ñoo ngi commencé woon waxtaan ci njariñal xaside yi ñoo ngi yemoon ci sëriñ bi fi mu njëkk a bindee xasida kon dañuy fas yéene yeggale tomb yi suñu tomb tey bi nag ñu ngi koy commencé ci sëriñ bi ay xeeti wayinam ñaareelu tomb bi dinañ leeral sëriñ bi ni mu xaralaa ci bind maanaam bind ni ci xarañee ñetteelu tomb bi dinañu leeral sëriñ bi mbindam ni mu amee doole ak maqaama yi ci nekk ak daraja yi ci nekk buñ doon wax nag xeet way na moom sëriñ bi moom way baxru yëpp way na ci ba andi ci baxru boo xam ni kenn miinu ko ci xeeti wayin yi comme ni mu tëggee mawaahibu xasid ak mawaahibu ak yeneen yu xawanduroog moom mi mi madal xabiru lisaanu shukri nga xam ne baxri la boo xam ni gisuñu keneen way wayaat ci ku dul moom te mi ngi ñaan ci biir xaside gi suñ boroom def ko muy way woo xam ni jigéeni àjjana yi moom lañuy ñuy te boo xoolee téere bu ñu wax at-targhib wa tarhib di nga gis borom téere bi di ci wax ni waa àjjana am na xeeti way yu ñuy wayantoo bu ñu xoolee way yooyu dafay xaw a nduroog bi sëriñ bi tuddee tëggee mawaahibu kon muy muy muy muy muy lu yéeme su ko defee baxru rajas tamit euh, moom la sëriñ bi ëpp lu mu way waaye baxru la boo xam ni bu neexawaayee a ba am na ñoo xam ne sax ñu yaakaar ni li mu yomba tax sëriñ bi topp ko waaye sëñ sëriñ bi andi na ci andi na ci ak xarala goo xam ni day dem ba mooy gën a jafe yeneen baxru yi loolu bu soob yàlla dinañ ko dinañ ko gën a leeral sëriñ bi nag ak yéemem ci bind moom bañ na ko lool la wax karaamaat yi xaqtu yat yi sama samay karaama dëgg-dëgg mooy sama mbindum loxo bi boo xoolee bokk na ci ak xasidaa mi eh, am mbindam ni mu yéeme mooy day jël genn xasida tënk ko ci ay araf moo xam yu alquran la wala yeneen nga xool xasida gi mu tëggee albaaqi muy ajaabani xayru baaqin fii xataaba kulli waraqa bi maa lii xaada aqtaaba li wajhi baaxin maxal maxa xasdal mabici lana faaraqtuhu wa huwa kax wal amlu maaxaaba ba ni xasida gi nga xam ni turu suñ borom boobu di wax ñuy wax albaaqi moom la tënkee xasida gi nekk da ko jëy jël way ci nga xam ni wenn araf ne day tolloog benn araf ci xuruful baaqi nga xool mu xaddamaatul am daax daa jël wa innaka la ala xuluqin azimin arafu ne mu way ci fukki way ñaar yu xarala ndax fukki way ñaar yu nekk seeni tàmbalikaay ak seeni yemukaay ñooy tolloo araf loolu tamit doon doon lu yéeme ci am mbindam buñ jëlee benn bayit exemple muy wasiqtu bi rabbil arshi zil juudi wal afwi maal mustafa wallahu li muxlidun safi boo xoolee waaw gi commencé muy wa seqtu moom la daanelee muy saf wi waaw gi mu moom lay daanelee ñu jëlaat beneen wayit muy xarful ayni gi muy afawtu anil aadaa'i afawtu anil aadaa'i turran li waji man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfa'u nga gis ni ñaari ayn yëpp ayin gi mu tàmbalee muy afawdu moom la daanile muy add faw ba tey am na lu ñuy wax luzumu maa la yalzam dafa bari lool ci am mbindam loolu tamit dinañ ko leeral ba tey am na nu muy faral di def ci biir wayin yoo xam ni moom it nu xarala da gis bayit bi muy uskur wa allim waltu baarik aji bi wan bi maa yaduumu ala ajabi nga xam ni siinu uskur ak ayinu alim ak baag waltu barik ak alifuk ajib ak nuunu ko wan fa dañuy junju muy weeru shaaban buñ ne ju rabiul awal rabiul thani jumaadal ula jumaadal thaniya rajab shaaban da ci moo ci topp buñ ne wax ramadaan nga xool kon euh, bayit bi araf boo xoolee araf yim ci teqale yëpp boo ko boolee dalay jox shaaban ba tey nga jël shukran wa hadiyan wa wilayata rida yaa man kafaani al ida ci nuuru daarini nga xam ne si shukran ak hadiyan ak waawuk wilaaya wilaayatan ak raagu ridan mi ngi ci junju shuhur muy mboolem weer moo tax bayit boobu bi mu daanee da cee teg fii kulli shahrin wajaali shuhura li ibadatin xawat muhura ba tey nga jël bayit bi muy xaddaman yi xuduumu man xad bi busharin wa xoqiqa rajaau nee ñetti xaaf yooyu yu njëkk ak jiim gi ak yaa gi nekk ci bi busharin da ciy junj lim bi gën a wér ci waa ahlu badri muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett nga xam ni noonu la ñëwee ci alminahul miskiya fil xawaarixil baqiya bu sëriñ Muhammadul Amin Jóob Dagana radiyallahu taala kon loolu lu yéeme la ci am bindam ba tey am na xarala goo xam ni daa mel ni ay cax boo xoolee xasida ak ashiinu mojamatan wal kaafu lirraa'i walbaa'i wa huwa albaa'u warraa'u nga xam ne boo ko dee xool te xamoo waxiinam dangay yaakaar ni waxul dara boo seetloo doog a xam ni ashiinu walkaafu warraa'u mooy shukru arraa'u walbaa'u mooy rabbu albaa'u warraa'u mooy baru boo ko boolee muy ashukru li rabbil bari mooy cant ñeel borom mbindeef yi kon loolu tamit lu yéeme la ci am mbindam boo tasee léegi lii mu wax nii nga xam ni ay xuruuf la ko def andi ak chiinu mojabatan mooy chiin su tooy mooy chiin soo xam dañ ko tomb ñetti tomb andi kaaf andi ra loolu ay way la waaye boo boo ko boolewul rek du andi maanaa kon loolu tamit mel na ni ci am mbindam lañ ko gën a miin boo xoolee nag mm, xasida yi nag moom doole ji mu am ak kàttan gi mu am ak li ci nekk lépp kenn kenn waxuñu ko ku dul sëriñ bi boo ko gisee boo yéree am mbindam rek danga ko xam nga xam ni wajaxal goo gis sëriñ bi wax ko ci biir xasida yi daa fekk suñ borom def na koo pare ndax am na mag mu baax mu daan wax ni ku ñu wax sëriñ Demba Kebe nee na sëriñ Tuubaa mu ni ko xam nga lu ma wóotalee gaa yu baax yi fi jaarum mu ni ko déedéet mu ni ko ñoom dañ daan ñaan suñu borom mu may leen man nag sans boroom daf may may ba pare donc ma wax ñaanal te loolu mooy maddal yel xusna wa maddali zayet man li yaqulu haka xabla maddiyet balaa ma tàllal sama loxo di ñaan la may yàlla jox ba noppi bu ko defee wama rumtuhu min malikin xaada bil ani ba tey loolu sëriñ bi moo ko wax nga xam ni euh, doole mbindum sëriñ bi mooy lim lim xasida yi ni ñu amee doole te suñ alaaji sëriñ alxaaji Mbàkke indi ko ci téeréem boobu ñu nahjul xawim fi maarifati xasaidi cheikh al xadim dafa wax ni wajaxal kitaabati min zal yawmi fawqa salaatin xubilat wa sawmi suñu borom na def sama mbind moo kawee julli gu ñu nangu ak koor gu ñu nangu waxaan yaa ma midaadiya jaalta kadima mam maahu xad shahidu min qudama yow sama borom def nga sama mbind mu mel ni dereeti ñu dee ci xare waxaat ni wajal xuruufi mucjizaatin uqirat wa xayra xayratin ladayka udqirat na nga def samay xaraf yi mu doon ay mucjizay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ni daa yéex a ñëw to doon aw yiw woo xam ni danga koy da koy nëbbu ba ëllëg daal wax ni wajaal kitaabati ilallaahi ahab min kulli xatin wa ilal maaxil ahab defal sama mbind mi muy la nga gën a bëgg ci am mbind yaag yonent bi salallaahu alayhi wa kon loolu sëriñ bi moo ko ñaan muy mbindam mi moom la yàlla gën a sopp ak yonent bi salallaahu alayhi ci mboole mbind yi daal wax ni hadiyati ilal jinaan saafiya kitaabati min kulli daa in shaafiya sama mbind bépp jàngoro lay saafara bu yaram ak bu xol waxaat ni hajat xasaidi xuluubal anbiya maal malaikati inda rabbiya samay xasida ci day jeqi xoli yonent yi alayhim salaatu wasalaam ak xoli malaayika yi kon nag luy yëngal xol yonent ak xoli malaayika yi du fi bàyyi doomu aadama nitu kese moo tax sëriñ bi waxaat ni hajat qasaaidiya xaal ba kulli man lahu saadatun walin xaadal aman képp ku nar a texe sama xasida yi day yëngal sab xol waxaat ni naabat kitaabati ani nawaafili walaysa badri abadan bi aafili sama mbind wuutu na mboolem naafila yi te sama weer du soox kitaabati min lawxi rabbin tunqalu laa yamtari fiha nabiyun yaqilu sama mbind ci allawxul maxfuus laa koy toxalee képp ku xel képp ku am xel te yeewu doo ci werante waxaat xasaayidi xasidati faaqat xasaayidal kiram wali taqudu abadan xayral maram sama genn xasida moo kawe mbooleem xasaayidi gaa yu baax yi daal yamini alaya basu ilmin yaquudu man yulaasimu xatti lillazi kaana mawduuxa kon li leen wax ni xasida yi ak ay kéemtaanam ak ak i ak kàttanam kenn du la ko nettalee ku sëriñ sëriñ bi moo koy waxal boppam mooy sa sama loxo ndeyjoor bi dama cee fas yéene tasaare ay xam-xam yoo xamante ni képp ku takkook moom dana la wan aw yoon ngir jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di waxaat ne alaya shaa rabbi xayru man faasa bil waxyi warlu naa ay taalif yoo xam ni ku dul ab dana ci gindikoo bu ko jàngee gindiko kon loolu mbindum sëriñ bi la daa di waxaat ne duna makaati bil ibadatu maa taxarubi kul masaya jamaa sama mbind moo féete kaw jaamu yàlla yépp loolu nag ku am pas-pas dëgg ak ku am tawféex dëgg moo koy gëm te alquran moom bi mu waxee li mu wax ba pare dafa wax ni alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur daa wax ni wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaaw wallahu dul fadli azim yàlla mooy jox ngëneelam ku ko neex te sëriñ bi ngëneelu suñ borom la yor kon loolu mooy dooley xasida yi kon xasida yi kàttanam ci ab jaamukatu yàlla noonu la mel buñ jëlee tolluwaay yi nga xam ne moo nekk ci xasida yi mooy xasida ab tabax la waaye am na am na ay bànqaas banqaas yi ci nekk na waaye dañ ci tànn juróom-ñaari bànqaas yi nekk ci xasida yi ñu loolu boo ko xamee di nga xam ni kon xasida genn jaamu yàlla mënu ko féete kaw ndax dafa dajale jaamu yàlla yëpp bi ci njëkk mooy xasida jihaad la jihaad ak yéefar la boo koy jàng yaa ngi jihaad ak yéefar bu ñu nee yéen saa salaam xaswa bi mu defoon xaswatu Tabuk te am na saxaaba yoo xam te ñu baax lañu woon sax waaye wuti nañ ko ndax xaswa bu metti la dëkk bu sori la ba alxuraan naan wa ala salaasati alladina xullifu ñett ñi nga xam ne dañu wute woon xare boobu te ñoo ñu baax waaye bi ñu layee après alxur suñ borom topp na leen ci daan waaye gannaaw ba jéggal na leen mooy bi naan la xattaaba lazina xare boobu bi fa yenn saa salaam ci la wax saxaaba yi ni leen ji naa min ghazwatil asghar ila ghazwatil akbar jóge nañ ci xare bu ndaw bi fas yéene jëm ci xare bu mag bi buñ ko laajee mun leen mun leen ghazwatu nas euh, jihaadu nas ji naa min jihaadil asghar ila jihaadil akbar kon jihaadu nas mooy jihaad bi gën a mag xasida nag dafa bokk ci ay bànqaasam boo koy jàng yaa ngi jihaad ak yéefar yi ñaareel mooy boo koy jàng yaa ngi julli ci yontu sallallahu alayhi ñetteel bi yaa ngi fàttaliku sunu borom ak di ko tudd yaa ngi sant ñeenteel bi yaa ngi sant suñu borom ak gërëm ko juróomeel bi yaa ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaareel bi yaa ngi jéggulu ak di tuub te boo seetloo yii yëpp juróom-ñaar yii yëpp benn bu ci nekk farata la ci ab jullit mu def ko alxuraan da koo wax xaddiis ñëw dëggal ko bu dee jihaad suñu borom moo ni yaa ayyuhal lazina amanu xaatilu lazina yaluunakum min al kufaari wala yajidu fiikum xilza waalamu anna allaha maal muttaqin yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm dangeen ngeen di jihaat ak yéefar yi te bu ñuy bu ñëw ci yéen nañ fekk ci yéen xilza mooy ak tàng te yi jihaat yi nekk dañoo dañoo bari daanaka mooy xasiday géej gi mooy bind ci géej gi xasida yooyu ci mbootum xul huwallaahu ahad la ko sëriñ bi bindee nga xam ni ci la wax ni laxad nazamtu la daa man sallasu samadan min qul huwa allahu sharwaahu lam ni way naa ci qul huwa ba ma nekkee ci yéefar yi loo xam ni amul moroom xasida yooyu dafa mel ni ay jaasi ci yéefar yi boo koy jàng yaa ngi màbb ak kéefar di taxawal lislaam ba tey sëriñ bi wax na ni bu bàyyiwutoon xasida yooyu yim nekkee ci géej gi yéefar yëpp danañu dee danañ faatu ci mbas waaye nee na daf leen a jéggal mooy law annani lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawin itaaba lamaata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi alxaafiri lakin afawtu an jamici nnaasi li waji baahin muhlikin xannaasi zintu maka tiiba taduumu rasida kulla muadin wajha rabbi qasida xasida yooyu nag daanaka xas bari na ci yoo xam ne sax sëriñ bi da ko wala ñenn ci ak njabootam bu dee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran moo wax ni yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman mooy na ngeen di julli ci yonent sallallahu alayhi bu dee tudd ko ak fàttaliku moo wax ni fas fazkuruni uskurkum suñ borom moo ni bu ngeen may fàttaliku rek di ma tudd ma leen i tudd di leen fàttaliku ndax yàlla moom du kuy fàtte bu dee sant yàlla ak gërëm ko suñ borom moo wax ni waskuru lii wala takfuru nii bu dee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, alquran moo wax ni moo wax wa innaka la ala xuluqin azim yàlla njëkk a tagg yonent bi daal di wax ni azizun alayhi ma anitum xarisun alaykum bil muminina rauf rahim donte sax waxuñ ñu tagg ko waaye tagg gi ko tagg rek war naa tax ku ne tagg yonent bi sallallahu alayhi bu dee ñaan suñ borom moo wax ni adduuni udduuni astajib bu dee jéggulu ak tuub moo wax ni wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kon lii juróom-ñaar la yoo xam ni bu ci ne farata la ju mënta ñàkk te sëriñ bi indi na ko ci xasida yi boole na ko ci biir xasidaam mi te bu ci ne am na ngëneel yu rëy yu ci nekk ndax bu dee jihaad suñ borom lam cay fayee mooy wallazina jaahadu fii na la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la maal bu dee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tubaa nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci ab xadis sëriñ bi way ko ci xasida yi mooy yaa may yaquudu li musalli marra alayhi asran xad tuniiru birra ak ni'ma shafi'un man alay imi ata sallaxtawa alfan tafuuxu fi ata ak waxu lazi liman alay alfa sallal muna fi jinaan maanaam ku julli ci moom ci ku julli ci yoon saa benn yoon sunu borom julli ci moom fukki yoon ku julli ci moom fukki yoon sunu borom julli ci moom téeméeri yoon ku julli ci moom téeméeri yoon sunu borom julli ci moom junni yoon ku julli ci moom junni yoon sunu borom julli ci moom lu bari faj ay aajom tàbbal ko àjjana loolu ab xadiis la sëriñ bi way ko ci ñeenti bayit yooyu ci euh, nooru daara yi te mooy mooy xadis bi yoon saa sallam wax ni man salla alayhi fil yawmi miata maratin qada allahu lahu miata xaajatin sabina minha fi l wa salaasina fi dunia ku julli ci man téeméer yoon suñ boroom fajal ko téeméeri aajo ak juróom-ñaar fukk ak ñett fajal ko téeméeri aajo juróom-ñaar fukk yi ci àllaaxira lay doon fanweeri ci àdduna loolu mi ngi ci tan bi téere bu ñu wax tan biwul xaafilin bu asamarqandiyu ba tey zikar yonent saa sallam nee na ci alxadisul xudsiyu iza zakarani abdi fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa iza zakarani waxdahu zakartuhu waxdi wa iza zakarani fi malain zakartuhu fi malain axsana minhu wa akram sama jaam bu ma tuddee ci cim xelam man ma koy tudd ci sama bopp bu ma tuddee ci wéet man ma koy tudd ci wéet bu ma tuddee ci mbooloo manit ma koy tudd ci mbooloo mu ko gën loolu mu ngi ci tanbihul xaafilin ba tey bu dee sant yàlla Saïd ibnu Jubayr radiyallahu taala anhu moo wax ni ki ki njëkk a tàbbi àjjana mooy kii sant sunu borom ci mbég ak ci naqar mooy bu nekkee ci mbég di sant yàlla bu newee ci naqar di sant yàlla bu dee tagg yonent bi sallallahu nag ci euh, euh, sëriñ bi wax na ci njariñ yi mooy wax ni fa madxu nabiyil karimil ali yakufulu ana wal rada wal fudux yu safi fu aadan araahul aza waaye ju sada wa zalamat umux maanaam tagg yonent bi sallallahu alayhi alkande seetal ab xol di di ci dind ay lëndëm bu dee ñaan itam yonent bi sallallahu alayhi mu'min ñaan mooy ngànnaayal ab julit alxuraan waan waxul maa yax bikum rabbi law laa duxaa ukum bu dee jéggalu ak tuub nee na istaxfiru rabbakum suma tuubu ilayhi yursilu sama aleykum midraaran wa yazidkum quwatan ila quwatikum bu ko defee kii tuub njariñ loolu moo ko ci fekk su ko defee boole gi xasida yi boole njariñ yi yëpp ak yu baax yi yépp nga xam ni sëriñ bi dafa ñaan suñ borom ni lij ma jamia ma tafaraqa la daa xat yi min al xayri wa safil xalada yow suñ borom mboolem yiw yi tasaaroo ci mboole bind yi na ko dajale ci sama mbind mi daa di wax ni hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi iyaali bi zikri ma salaati wa bil madhi bari na loo xam ni kon euh, mboolem yiw yu baax yëpp kon sëriñ bi da koo dajale ci am mbindam kon mel na ni kon booy jàng xasida mboolem jaamu yàlla yëpp yow boole nga di ko def kon li ci ëpp solo mooy di ko sellal ndax euh, jaamu jaamu yàlla li ci solo mooy sellal gi ndax suñ borom inna allaha tayyibun laa yaqbulu illa tayyiba suñ borom ku sell te du nangu lu dul lu sell kon loolu lañ leen indiloon ci euh, njariñal xasida yi ci seen émission jaalibatul buruur di ko jàllale ci mañ Majmahun Nurayni TV ñi ñaan suñ borom lépp lu li ci jub rek ñu xam ni suñ borom la lépp lu ci dëng rek ñu xam ni euh, kii ko doon wax la waaye yàlla nañ ci yàlla dajaleel dégg ak topp defal ñu ci njariñ lu yaatu tasaare ko ci mboolem julli di ci barkab Cheikhul Xadim kon xam naa fii la ñuy yem ak seen émission jaalibatu buruur ba beneen yoon incha allahu taala comme ni ñu leen ko waxee woon rek émission la boo xamante ni ay njariñ rek lañ ci fas yéene jàllale muy njàngaleem diine ak njàngaleem sëriñ bi dinañ ci tamit incha allah fas yéene dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ni dinañu indil ay njariñ yu am solo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu